lan na li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha allahu yàlla nee na bàyyi leen di wax te du ngeen ma ci boole lu ngeen di wax nee leen bu neexee yàlla Serigne Cheikh Tidiane si wax barki démb ni yàlla bu doon am sant njuy lay sant ñu ne ko luy loolu mu ne li nga dul foog rek lay def sëriñ bu ci bëgg say taalibe respecté la yokk sa orma bi nu la jox lu ñëwagul noppi ci réew mi di ku bëgg ñu weddi la weddi gu gaaw del def lu ñëwagul nga di ca wax nañu bàyyeek yàlla jaam ñi